Kébé moo ngemboo ngembul vax bi takk moo sobu xonk bi ci bopp bi Siteu bu Gunaas moo ngemboo ngembul bopp moom ba tey tamit vax la Itilaire ak Siteu bu Gunaas Itilaire door na léegi mbokk yi Siteu bu Gunaas lewaatoo bi xaw na yaatu Siteu bu waaw bu gunaas ak benn loxo ba iti leer door na léegi waaye mbokk yi dalul moo daanta bëgg naa la iti leer ak Siteu bu gunaas iti leer Siteu bu gunaas iti leer Siteu door na léegi iti jàpp na fàq nañ ko fàq na ko fàq Pitillé Siteu Gunaas nu mu koy def da koy fàq mu ñëw doole waaw waaw doole doole Pitillé daan na ko moo ngay prié moo ngay tëb moo ngay tëb waaw waaw Pitillé daan na ko Pitillé daan na ko Pitillé dooraat la jógee ma ngay daw fu mu jëm ma ngay daw fu mu jëm xool ko xool ko la muy def lii la ku ci nekkal say feem ku ci nekkal say mañee jàppal leen ma ko kaaree nga noonu <laughs> waa doo dooraat la parcelle amati na nu barki Serigne Touba Mbacke victoire bii nii may naa la ko ndax jigéen nga teel bi jigéen ñi barki Serigne Touba Mbacke sama yaay daa sonn moo sama yaay dafa sonn wóor na yàlla sama sant bu baax maa ngi sant Dia bu baax Dia daf maa jàppale. maa ngi maa ngi maa ngi sant jàpp bu baax jaar daf ma jàppale. américain américain maa ko daa sonn ci man xaalis bëri la ma jox jibi jibi Guèye waa Inde 4 waa Fadia waa Fadia Def waa Fadia Def Def Def bu Fadia waa maire bu dëkk Fadia padre grand padre tant que jo tant que dafa gaañu dama ko bëgg rendre hommage nga jël vidéo nga jël vidéo bi yàlla dugal vidéo bi. ngeen ngeen jël ko maa ngi maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu sama waa koñ sama waa koñ bokkuñu dara mais ñii dañuy sonn ci man wóor na yàlla dañuy sonn ci man te man sama lépp sama yaay la sama yaay bu naree gaañu yàlla naa man yàlla naa gaañu man sama yaay sama yaay def wóor na yàlla gudd fan mais yàlla naa yàlla barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñaan naa yàlla gudd fan waaye sama yaay yàlla na ma njëkk gaañu wóor na yàlla maa ngi sant kii kii daf ma sonnoon Birane Thiam dafa sonn ci man daa bàyyi liggéeyam kii borom jabar la wóor na yàlla boobu ba tey Bamba Tall gars yi dañoo sonn ci man ay ñoom Vieux ay ñoom boo limee rek da ngay juum quoi wóor na ay ñoom Bogis Bogis maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko mu doon pro ngir yàlla mu wut na Sëriñ Tuubaa man Siteu bu Siteu bu Ngor Luis Diago Luis Diago Luis Diago waxuma la ma Diago de Luis Diago lu ñu bëre barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke wóor na alxuraanu karim ma dama mbabat Reug Reug dama ko daan jëlee bu gaaw wóor na ak Alxuraanu Karim barki yàlla Reug Reug ñii du ma ñoom man li ma metti mooy man du ma bëre pour ñu tëgal ma combat dafa métti wóor na yàlla pour barki combat gis nga ñee ngay gis léegi lépp wax ne bu yeboo nga xool bu baax ñee ngay gis ci yëpp wóor na yàlla maa ngi maa ngi jàpp maa ngi sant Amar Faye Amar Faye waa Faye ni sama turandoo maa ngi koy sant di ko gërëm. dañoo ñëw suñu waa koñ dañoo dajale ay xaalis yi wóor na yàlla jox ma ko bari ñaan combat samedi bii nii Ardo day bëri suba yàlla na ko yàlla may ndam Biro tamit day bëre grand combat yàlla na ko yàlla may lat yàlla yàlla yàlla na télé bii yàlla na doon ay télé télé yu mag a mag di gërëm dara Fatima waa koñ ba maire yëpp maa leen di sant di leen gërëm ci dara daraje Seydina Ahmad Bamba Tall ma ko koy ziar bu baax waaw jërëjëf xoolal jaar. mais lan ngay ñaangal yow Sango. man nam laay ñaan yàlla suñu borom. nam laay ñaan yàlla suñu borom. te si kàttanu yàlla suñu borom. da ngay ne Dalembert ñëwaat na. mais capitaine ma gis pare <laughs> nga kii lu tax muy njëkk si lii la si lamb ji njëkk si meeku def ambiance. bàyyi nga ma ambiance. loolu la am si lamb ji. fi nekkul li mu liggéey loolu lay wane. liggéey na de gisoo ko. naa gisoo ataara foofu. yow ah yaa ngi koy ñëw làmb. déedéet tey laa doog a ñëw. voilà looloo tax. mbër mu liggéey xam nañ ko. mais tey bés bi lan la laaj. bés bi lu mu laaj tey dal. parce que fête de la femme la. te dalaa boobu sama yaay dafa ko soxla. ba may génn suukar sama yaay dafa ma ñaanal bay jooy. barke Seydina Mohamed. kon dana waroon a man tey lu dul ma jël ndam li yóbbu ko 25 si kàttu suñu borom te gëm naa ne bu neexee yàlla rek bu neexee yàlla suñu borom yàlla dina ma may ndam si kanam incha allah. a ñu am xeex. non dégg nga lu mu laaj rek lu mu laaj capitaine mbër la champion la ndaanaan la mais lu mu laaj si kàttanu yàlla loolu laay def si lamb ji te gëm naa ne yàlla dina ndam. incha allah nga gëjoon man ba ma gëjee bëre maa ngi ba ma gëjee bëre mën na 3 ans nag. mais est ce que doo perdre repère. dégg nga lu ma wax man mbër mu ndaw laa dama am ndaw laa dama am mbabat kon gën a bëre yooyu yëpp kon de xam nga lu ko ne armes yu suuf la ñu jëflante ñu bu ñu dalantee da nga xam kooku doole incha allah. ci kanam ci kàttanu suñu borom. kaay kaay kaay kaay jëlal. mais namu naa la. maa lay ziar. ci loone waa nice sant yàlla. toog kuul. waa tey dama ñëw rien que pour indi sama boy bi Calember. waaw mu nekk booy bu yaru tamit booy bu neex a booy bu neex a liggéeyal ñu am tamit bu baax a baax ngir lim liggéey waaw mu am ñu am confiance bu baax a baax a baax. waaw dégg ñu gis sa combat bu mujj bi nga ñëwee andi nga état mais après combat bi daal comprendre lu ay réclamations yu ne moo ci am lan la. waaw yow moom yow yaakaar naa yaa ngi fa woon bis boobu ba ma kii yaa ngi may tàllal micro maa ngi am lu may sànniwante ak yow di la wax mais dafa am loo xam ne ni gars yi dañu si war a jàppale quoi parce que ñun amuñ lu dul làmb ba pare bon nekk si nekk si dëkk bi. nekk ay mbër yoo xam ne nii ku ne Brise de Mer tey Sénégal duñ la laam xam xamee nañ la kon danoo bokk ci làmb bokk nañ ci lii defar làmb bokk nañ ci loo xam ne éducation boo xam ne nii ñu yàq làmb kon war na ñuy jàppale war a bàyyi ay par parlanto bi ay kii dafa war a dem a kii dafa war a dem mbër bu bal demee ba bëggul dem na tekki nga moom toog ñun ay jeunes lañ kon xale yi yàgg a bëree yaa ngi dégg def lu ne si làmb nag am takkusaan bu nekk kon normalement dañu war a jàppale combat boobu entraînement naan li ma war a entraîner def li ma war a def yaa ngi dégg sama waa koñ waa GM waa Kaffrine ñëpp waa Sébikotane waa ñëpp ñëw ci combat bi ñu ñëw ñu ñàkkal ma fayda booy bi pressé ma bës sama loos wi au lieu arbitre atte lan nga doon xoolee ba mu lay kott kott na la. ci boog ci li nga wax kott na la. nga rëcc mu tànte waat ko nga nangu mu kottaat la am. waaw mais c'est dafa am règlement yoo xam ne bokkul si làmb dafa am loo xam ne bokkul si làmb kott bokkul si làmb nit lu mu jaax jaaxle lu mu jaaxle jaaxle bul matt bul bul bul bul bul kottu bokkul ci làmb man boo ko defee damay damay pour man arbitre soufflé na parce que damay yóoxu arbitre ba sonn arbitre arbitre arbitre pour man arbitre ba yegale action ba arbitre soufflé non parce que ni ma faree mënatuma yeggale parce que dama sama loxo yi mooy sama appui mënuma signalé ma def dara doole góor moom ci loos la ne ah doole góor ba pare daf ma ma koloj daf ma kott ba pare koloj ma daf ma kott ba ma jël affaire am bi dugal ko sama fii jëkk naa cinq yoo xam ne dama ansi mënuma lekk booy bi lim la teg métti na. bilaay daf ma gaañ de mais gars yi comprendre ñu. gars yi comprendre ñu. kottu bokkul ci làmb. làmb ñun dañoo def lu nekk si làmb. suñuy bës dañ ñu ko war a respectel xam nga yemale ñëpp loolooy dekkalaat làmb mais bu amaan ay par parlanto yi rek day indi yeneen. fan nga jëm fi mu toll. fi ma jëm maa ngi toog sama ruxu dama naroon a bàyyi sax làmb bilaay mais mooy loolu. dinaa la wóolu nga ñëw plateau ba. amul di nga ñëw ci kanam fii laa la ko waxee dëgg. maa xaar. boo toll. man fi ma toll xanaa ñagas dëgg la ñu leeral ko. ñagas dëgg mbala Ahmed Lac Rose. ñoo ah, dugg ci avance ñagas dëgg. waaw ñagas bëgg naa bëre moom na ñëw. keneen xalaat booy na de. combat balaa moo caatuwaal di taxaw maa ngi moom ñoo naroon bëre abar werante. waaw manager bi jox ma keneen boo xoolee nii kanamam gi day trompé. waaw boo ko gisee nii yaakaar ne kii la day xeex day bëre. Ah, waaw noonu la ah, naa njaago ñu bëre quoi sama morom yi dañ ñëw ñu bëre waaw yaatal naa sama buntu ñëpp képp ku na ñëw Thiatou Fora Lac Amet Lac Rose Niakhas 2 ak ñeneen ak ñeneen ñi laamu bo laamu bo waaw bu yombee baaxul parce laamu la ñuy dund. laamu la ñuy dund gars yi dañ ñëw ñu bëree dañ ñëw ñu bëree. billahi wallahi wa taala di nga jàmm yàgg amiin amiin am na ci boo yoo xam ne dañoo kuul boo leen jàppee jàpp nit waaw kii ci la bokk amul ragal yow après dafa ma sin rek waaw amul ragal inshallah waaw da nga koy sant baax a baax. waaw dama la war a wax bilaay man la man damaa toog affaire rek. le 19 la. kan mooy bëre spécial. ñaa kii George Bush ak euh, Papa Laye. béykat yi booy ñaaw. kii moom tey laa ko noonu démb laa ko noonu jëlee mooy def signature rëb. rëb waaw bëggoon jëlee gars kii mais suba xam naa naa ko def dem ci booy. Ah, rëb day dem signature jëm waaw après nag may xooloon. spécial yi. spécial yi nga may xooloo jox leen moom nañu leen plateau balaa am na ñu ci biir semaine bi ñu nekk. waaw defal ma loolu. loolu kay ci yow lay des ah maa ngi ñëw léegi waxtaan 2 ak Boy yaa ngi ci digg géew bi ñoo ngay lewaatoo Marle 2 mbokk yi moo ngem boo ngembul xonk li takk moosu bu xonk bi ci bopp bi Boy Waalo ngi topp ci kawam Boy Waalo reculé na léegi Marle 2 ak Boy Waalo Boy Waalo koy xool ci biir bët waaye kii est-ce que Boy Waalo la <laughs> eh, Boy Waalo ak Marle 2 Boy Walo daa mel ni jàpp maar la cokkaas na léegi maar la cokkaas na léegi maar la deux Boy Walo Boy Walo ngi dox ci kawam door na ko fekk da ko doomu daanu waaw waaw waaw waaw Boy door na ko mu daanu Boy Walo door na maar la mu daanu da ko dóor dox ci kawam saas ko mu wàcc maar la deux xamul li xew ana ay mbokkam nanu ko jël si maar la deux ana ay mbokkam jëlal ma maar la deux dafa jaaxle xamul lu xew ba tey ma ngay daw ma ngay daw jàpp leen ci de jàpp leen ci marle ngay daw di dem booy waalo nga koy xool bàyyi leen ko nee na ngeen bàyyi ko nee na ngeen bàyyi ko kaawo baaxul kaawo baaxul kaay fii dama taxaw dama ñëw def ñaari combat ñàkk ko bii mooy sama sixième combat ñaari combat yi ñëkk yëpp dama ko ñàkk mais dama dem defaru ak samay mbokk ñëw di daan gëj am ñëpp moom ma jàppale maa ngi gërëm wàll yëpp maa ngi gërëm Fatick di gërëm El Hadj Souleymane Diouf Daas maa ngi koy gërëm bu baax. billahi ñaari borog laa dem mu jox ma 400000 jëndal ma ko maa koy gërëm di gërëm Cheikh Séeréer Cheikh c'est mon ami kii ah parce que Seydi Hadj Malick laa gëñ démb dañu ma dama koy dóor mu daan te dama koy dóor mu daan xam nga moo tax lool dama ko entraîné musique dama koy wax ma kii boo ko dóoree du taxaw Aliou Seras léegi léegi lan la kor ko dóor ko ñaari épicule mu wàcc loolu laa ko def. Ah. man damaa mën bëre te gu ma. léegi foo da nga jox ci gars yi man man man mënu ma bëree six combats am ci deux défaites gars yi bëgg ma taxaw. asani nii su ma mënut a bëree grand combat spécial laay bëre dootuma bëre. waaw di waaj rek waajal rek xam sama waaw waajal rek xam. combat bi lu mu laaj. waaw lu mu laaj mooy daan rek incha rabi daan rek. waaw daan rek lu mu doon. waaw xam rek man xaw ma sama gars yi rek. man xaw ma ci dara sama gars yi may jox rek. mais ñaar bi dafa am soxla dafa soxla de. waaw mais xam nga yàkkamte yóbbul waa Thiaté gi ndam. dañoo soxla ndam quoi di ñaan yàlla may ma ndam si kam tala Waly moo nekk nële. Bambey numéro 2. Ndiol Waly mu ko jébboon jébb lu ñuul li mu ko turee dirigé Waly. bu Pikine. Ah, waaw ah, waaw. waaw waaw Bambey numéro 2. Bambey numéro 2 ak kan. ak Ndiol Waly boobu mooy sixième combat de la soirée sama gars yi tey le mardi 8 mars 2022 ñu ngi à l'arène nationale promoteur. ah. ah. bi sifflé na. combat bi dox ci diggante Ndiol ak Pambaay numéro 2 Pambaay numéro 2 mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw. Ndiol Wally lool Pambaay wàcc na ba gën Ndiol Waly xëcc na Pambaay daw na jël ko Pambaay jël ba sori na de Pambaay jël ba sori na Ndiol Waly lu mu bëgg def Pambaay da ko dóor tege de tege way Pambaay eh, <laughs> mi affaire la de dóor na ku doo fay la tudd waaw Pambaay Ndiol Waly Pambaay la ma ci métti jël ba ngay jël dafa sori Pambaay da ko bëgg xar wala lu mu bëgg def Pambaay kele bi nga bëgg a dafa sori Pambaay lu mu bëgg def Ndiol Waly ngay daw wala boog ma ngay reculer Pape Mbaye Ndiol Wali Pape Mbaye Wali Pape Mbaye numéro 2 mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Ndiol Wali la ñu jàkkaar lool Bambaye Ndiol Waly xale yaa ngay liggéey Bambaye numéro 2 Ndiol Waly ñoo ngi jàppante ne ngeñ ku ci nekk yaa ngi déglu sa morom

Pambaay numéro 2 Ndiol Waly Ndiol Waly nga dóor Ndiol Waly lu mu ko bëgg a def Pambaay ma ngay bëree Pambaay nee na sëq ca gaño ga ku ci nekk ngi jàpp di liggéey Pambaay oh, Ndiol Wally daan na ko Ndiol Wally daan na ko Ndiol Wally daan na Pambaay waaw ñuy waajal lu 20 di waaj ay innovation yi doy waar bi nekk diggante Guédiawaye Parcelles lox choix bi Gora Sock ak ki nga xamante mooy Fils de Balla. waaw xam nga dër bi Guédiawaye dafa yàgg. waaw gis nañ diggante Modou ak Balla Gaye saa su ne combat dër bi la. ça veut tamit Gora Sock ak Fils de Balla. ñoom euh, dimanche la 20 suñu taxawee war nañ déclencher dër boobu daal muy combat bu am solo di ay adversaire de taille di ñaari mbër yoo xam ne ku si nekk làmb daa am fu mu lay xaar làmb am lu yaakaar si yow ça veut na ne ñoom suñu xeexee danoo war a xeex suñu bëree danoo war a xeex parce que ay adversaire de taille lan làmb am si ñoom yaakaar am fu mu leen di xaar muy combat bu amateur daal waaw combat bu am solo. combat boo xamante ni ku si nekk dégg naa ñu ne. delloo ma sama mbaxane la combat bi tudd. waaw soo gisee seen première signature Iba waaw ku si nekk dafa jël mbaxane moromam moo tax combat bi delloo ma sama mbaxane la mbaxane Fils de Balla soo demee kër Goro Sock fekk ko fa mbaxane euh, Goro soo demee kër Fils de Balla fekk ko fa muy combat boo xam ne déjà dafa am tension pour def face à face rek pour l'instant euh, jam production bi dafa am problème saa su ne tension bi ñu ngi koy sóoraale te xalaat nan ka lan moo tax boobu ba léegi si bëri ñu defagum ndànk daal. di waaj daal le 20 ak innovation yi doy waar. ba pare dañoo indiwaat beneen grand combat muy Ronaldinho bu Tëngéej jógee si Koña 2 ak ndam lu am solo boole ko Kaaw Gourdin bi jël tournoi bi daan caatu daaw de faal final muy ñaari grand combat ak ay spécial yu doy waar daal le 20 waaw. kon lan ngay wax amateur. yi ñu ngi woo ñëpp la 20 incha allah di wax innovation yu bari daal ñu ngi ko siy xalaat. waaw ñu ngi xalaat animation bu doy waar tamit si journée bi di wax bu am solo la si làmb soo xoolee mën na ne mooy affiche bu gën a mag mois de mars bi soo xoolee Modou Lo Ama Baldé gis nañ ñu ngi ko doon xaar amul kon pour l'instant dañuy jàpp ne Goro Sock fils de Balla Ronaldinho Kaw Gourdin moo fi affiche bu mag mois de mars bi di wax bépp amateur bu fi ñëw di nga am satisfaction à 100 pour cent ndax teg nañ plateau bu am solo boo yoo xam ne ay fils de Sam-Sam Mama Lamine ñoom jeex jàmm Souley Gaynde ay plateau bu am solo daal waaw teg nañ ko le 20 incha allah. kontaan nañ kontaan nañ trop. kii may bëwoon la neuf suba suba lan ngay wax amateur yi nga boole xale yoo xamante nii mën naa ne ñoom ñaar ku ci nekk bi mooy sa premier grand combat ñu war a nga dugg diggante euh, Médina ak Parcelles ande Ardo ak ki nga xam te mooy Mbagnick Kaïré suba lan ngay waajal gars yi waaw sant bu baax di wax alhamdulilahi rabil alamin ba journée bi desee suba sant nañ si yàlla bu baax a baax a baax a baax waaj suba nag mu nañ wax ni pare nañ si lépp nag di ñaan yàlla yàlla suñu borom ñu commencé si bisimilah rahmaani rahiim jël si alhamdulilah rabil alamin mais ñu gis combat bi nekk combat combat combat espoir lan moo waral datu di bi. waaw mais xam nga datu mercredi moom mun nañu wax ni. lamb moom sens rek quoi ndax tey ji boo tëggee xale yi am mbooloo nga tëgg xale ay xale am na espoir lan bii nekk seen premier combat yaakaar naa ay mercredi ak dimanche yëpp pour man benn la si man ndax boo xoolee le huit le tëggoon naa fi le 8 juillet fii si arène nationale mu nekk loo xam ne lamb jeudi lamb ju fees dell kon boog man mercredi ragaluma ko ndax banlieue laa dëkk dëkk ay doom banlieue yaakaar naa ragaluñu mercredi daal di ñaan wax promoteurs yi ñen ñëw jàppale ma wuy suma amateurs yi ñen ñëw xam ni combat combat espoir la am na yeneen combat yoo xam ne mu ngi si biir di nag rendre hommage Doudou surtout loolu ndax loolu lamb ji loolu moom si gën a neex ndax rendre hommage bu may rendre hommage du yaaykat yi ndax boo xoolee du yaaykat def na fi loo xam ne te ji si lamb kenn war ko mën a fàtte kon donc suñ ko rendre hommage amateur promoteur képp koo xam ne ak lu lamb nga war nga mën a ñëw fekkee drapeau du yaaykat yi bii di gërëm na ñaar ndax gëm naa sama bis bi jàppale nan ma si ku si mel ni Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye Bawol jàppale nan ma sama bis bi bu baax baax ba ma sentir ko ak moor bu parcelle taxaw nan ma jàppale nan ma damay ñaan yàlla yàlla suñu borom bàyyi leen fi petit suma frère depuis depuis barki dem ba léegi moo naan la noo fi dinaa ko téye maa leen di sant di leen gërëm seen taxawaay gis naa ko di wax ne nag du ma gën a gore moo tax seen i bis chaque jour dama siy sonn di seetay sama bopp mais daal li si kanam rawati bët daal nan bàyyi ba si kanam quoi suba daal dégg su garaaw tamit yëmbal lay bëri. waaw xam nga dama lay bañ a fekk. mbokk yi ñooy xale yaa ngi ci digg géew bi. Bébé Sa Kadior ak Farou Diar Farou Diar la nu jaakaar lool Bébé Sa Kadior mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw xool Bébé Sa ak waane xool nu muy lewaatoowee am na mu jëppee tànk ya eh, na léegi Farou de lambul Farou Diar Bébé Sa Kadior mi eh, eh. <laughs> Bébé Sa foofu jël liwaatoo na ba mu neex ko mu dagg liwaatoo bi daw deltuwaat gannaaw Bébé Saaka Joor Faroudiar Faroudiar sëgg na ci bu suuf day ci bu dóor waaw eh Bébé Saaka Joor foo ne da koy dóor dóor fa dóor dëkk la woon fa yoo ko tas dóor na ko dëpp ko na ko naax da koy plaqué Bébé Saaka Joor bañ na Bébé Sa Cadior Farou Dia mu ngay mi affaire la de Farou Bébé Sa Bébé Sa Cadior Farou Dia Bébé Sa Cadior mu ngay uppercut mu ngay ma ngay fayu ma ngay dóor ma ngay fayu ma ngay dóor da koy jël ba jénn nañ kaa neex na wawagul jeex lii neex na wawagul jeex ñëwaat léegi ñëw. jigéen ci explique naa. te yow de dama taa ko góor. Bébé dem na arbre léegi ba dellusiwaat. Bébé Sa Cadior Farou Dia. ñoom ñaar ñëpp mbokk yi dem nañu arbre ba dellusiwaat jaajëf eh mais Farou Diam eh, agressif tey mu dee da ba da koy daan Bébé Saka Dior Farou Diam Farou Diam mi ndeke ah li naan sa jar lambul lu mu koy def Farou Diam dafa bëgg bëre da ko déet déet déet déet génn nañu da ko eh, yaa ngay bëre léegi arbitre bi sifle waat na Fabou Diack mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw demaat na ardo ba del siwaat ak Bébé Sa Kajoor ñoo ngay xoolante ñoom ñaar ci biir bët waaye mbokk yi booy xool kii de nga mooy Fabou Diack xeex bi la gën a bëgg ngi lewaatoo ñoom ñaar Bébé Sa Kajoor cokkaas na léegi Bébé Sa Cadior Far Routier Far na léegi dóoraat na dóor day ñëw Bébé Sa Cadior day ñëw de Far Routier xeex moom waaye xeexu benn Far Routier assuré dañoo daje ci suuf ñoom ñaar plaqué na ko plaqué da koy daan Far daan na ko Far dóor na ko duma na ko daan na ko Far Fort Rougnière daan na ko dóor na ko góor su daw jël ko plaqué ko daw ak moom su organisé daa mel ni ñun ñoo organisé te si kàddu yàlla man est-ce que du fanaan fii pour xëy ne ci organisation bi ndax Ama Dia jaral na ma daal waaw Ama Dia day sarga bay sarga ñu dee ñi nga xam ne dañoo dëddu bari bu am coloré gi Ama lay sargal loolu tamit loolu dafa garaaw daal barki Serigne Bamba Fatma Dia sama xol barke alxuraan ke loolu loolu sama tooy <laughs> da ngay toj de. wallaay lu ama jàpp te pourtant mënoon na ko benn Fatma Diagne nga xam ne dina si yaakaar benn 1500 mais defu ko barki Sénégal loolu dafa rëy ndax nit ñi xam a fàtte ku dee te wax dëgg yàlla moom deful loolu. ñu koy Alioune sa baabaa tamit lan nga wax ci làmb ji lañ la wax. waaw li ma wax ci làmb ja ban làmb bii wala ba Ama Dia bi. làmb yow fan nga toll. maa ngi ci dama ne woon rek. nekk sama ruqali entraînement rek. di xaar lu ma yàlla jox ma jël ci loolu laa ne de. gars yi waxaguñ dara boobaa ak dara nag mais xam nga maa ngi nekk sama li ma war a nekk nekk sama entraînement suba ngoon dëgg yàlla xam nga di xaar daal di xaar. lan moo waral nga laaj Reug Reug ah waaw li laaj Reug parce que dañoo war a bëri rek deful lu ma deful ci làmb de waaw xëy na nag waaw. chance moo bokkul mais wallaahi la azim suñu bëree dañoo war a bëree war na rosoo laay suñu bëree dañoo war a bëree te bu dul moom xale yaa ngi fi topp safin xale yaa ngi fi ñeneen na ñeneen yaa ngi fi boo yaa ngi waaw man maa ay rëg rëg kii de mais man boo ma fi kenn maa fi pour làmb rek barke Seydina Mohamed diggante Diène Kaïré lan moo waral combat boobu ba léegi non Diène sama doom la Diène Kaïré moom mooy loolu non Diène Kaïré sama doom la maa papaam li ñu boole ay làmb du moo koy yàq xam nga rek lamb jooju yàqu na. lamb lamb lamb na ku ne mën ngaa bëree mën ngaa bëree ku ne. loolu la digganteeg Serigne Ndiaye ah sa digganteeg man. ah Serigne Ndiaye bi nekk Fass. ah Coriace waaw champion la wax dëgg yàlla champion la. champion la man daal man xam naa ne champion la mais lan nga wax ci moom. non champion la li ma wax ci moom kay mooy champion la. da nga koo ñemewul. non question man moo amul ku champion laa la ma la wax man moom du ma. bu andi noo koy def. ah bu andi woon avance am noo su ma jëloon su moom du ma ko jël moom. waaw non pour l'instant moom xam nga du maa ak moom quoi waaw. kontaan nañ ci siyaar sunu yaay yi ak sunu soxna yi di la siyaar mon di wax ne Sénégal lañ mën a jigéen ñi te sargal leen bu baax a baax a baax xam nga jigéen mooy magasinu sunu borom. lépp lu nga xamante nii ci mu ngi ci àdduna suñu borom ci moom leen di ñaanal bu baax may nuyu sama soxna xam nga di ko siyaar bu baax di siyaar suma sœur yi di siyaar ñaanal suma yaay yàlla ko yàlla ma maa ngi sant man saa su ne combat ñëwagul na man gaan est-ce que ma bàyyi dem defe leen tamit wala dañ gisoo leen loolu gaan affaire taxaw na trop bi laa yow mais nag problème loolu da ngay wàññi dóoraate bi bàyyi gars yi ñu jël tànk ba yeggal fu sori bu man la ñuy dóor ma de man dama dóore man moom man la ñuy dóor may riposté xam nga man woon entraînement ba jeex gars yi dinañ la ñëw mbalitu Seera Fall man la ñuy may riposté xam rek Seera Fall génn ma ci ak yàlla suñu borom mais man ma la soo wàññi woon entraînement yi ba jeex gars yi dinañ la ñëw man temps entraînement ma de temps yi dama toog jàpp sama ñàmb rek tëranu ma de tëranu ma de waaw ma doon dégg loolu laaj Zarko mais Zarko am na combat mais fi ñu doon bu dul booy sens ndax ñu ñemee la mën a bëri ñëw man booy sens ah yow loo nga may conseil ban booy nga bëgg bëri nañu yow sa diggante ak Serigne Ndiaye. maag Serigne Ndiaye bu ñu ma fayee xaalis moom ma ma jël ko bu ma fayee xaalis bu bari ma jël ko. jëmale na woo plateau ba loolu nga yaakaar du daal. non du ma ñëw plateau ba mu ñëw plateau da mel damaa bëgg a bëri ak Serigne Ndiaye. man man maa lay woo man man man maa lay woo. yow yaa ma woo plateau mais du ma ñëw plateau ak Serigne Ndiaye mel damaa bëgg a bëri ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye si pour ma bëri ak moom dañ lay fay xaalis bu ma jaral ma bëri ak moom parce que amatuma sens pour ma maye fa la ko ma jëlee sens wala ñu may ma beneen sens pour ma am sens amatuma sens sens jeex na. kontaan nañ ci yow. ci loolu. waaw sant grand sa sa digganteeg Angleterre ba léegi kenn gisaatu lo kenn déglu da ngaa bàyyi. non bàyyiwu ma bu ma bàyyi woon du ma ñëw ci làmb ni mën ngaa ñëw pour seetaan man làmb dama cee bokk làmb làmb sama sang la. mënut du ma ko bàyyi. la moo tee bëree góob boobaa ak léegi. waaw damay rek nekk ci li ma war a nekk nii rek di waaj. kañ ngay noppi. non pare naa instant waaw dina dinaa bëre fan yii rek yàggul. waaw maa ngi ci sama entraînement di waaj. mais pare naa. waaw léegi ma gis moom bentoo rek. maa ngi ñëw ci làmb ji allah. maaji maaji bu bees sàq la ñuy gisaat. Ah. waaw maaji maaji. isbak ah. ñëpp nee nañ amoo garde xanaa boo ñëw garde bi di nga ko àndaale. ah. ah ndax ndax combat ma jugee. kat kaaw laa def man damaa door ñeenti mbër ñu daan. mais Angleterre kenn xàmmeewu la mais mais damaa xeex xam nga xeex coup perdu fu nekk lay jugee. coup perdu ku nekk la mën a daal. non xeex rek jël coup perdu mais jamuma coup direct coup perdu lan lan moo tax man daan door naa quatre mbër ñi daan moo tax kay ay gardé nii mais boo amee defet moom di nga dégg lu nekk mais da ngay muñ rek toog. kon daal ñu xaar maaji maaji bees waaw soo daanee rek lépp suulu mais boo amee defet lu ne feeñ. kontaan nañ waaw ñu ngi lay delloo si waat. yéen mbër bëgg fii la bëggee. Eh, waaw waaw affaire ñun bandi fële lañu ci géew gi. ci géew gi waaw waaw waaw gis nga. ndam nag neex na tamit ndam dafa neex gaynde bilaay di ñaan yàlla mu yokk rek. Eh. gaynde bi nga andi daan bëre bëre dimanche xëy lundi noppalu mardi nga dem jëlaat avance. waaw mais loolu moo ñu indi moom la ñu waxoon li nga xamante ni moo ñu delloo si ak Sénégal rek loolu ci loolu la ñuy nekk ba tey di wax ni euh, ñu ngi woo euh, euh, Grand Yoff yëpp di leen woo samedi le 12. fële ca terrain Lawbe ñu ñëw ñu sargal waa Grand Yoff ñëpp zone 7 di ñaanal sama rax sama xar yàlla defal ko ndam lu sedd guy muy mbaax ñu dem feete ko foofu incha allah. sa diggante ak Baye Mandione taxoon laa jógee Espagne ñëw nga ñëw mu yàqu nga bëri am ndam jëlaat ko. combat bi. ba tey dañ nekk ci même dynamique bi rek continuer di waat continuer waat di liggéey rek après jël Baye Mandione rek si di ñaan yàlla defal ñu si ndam di ci woo l' ensemble zone 7B de Grand ñu ñëw jàpp ci. Euh, le 15 yàlla defal ñu ndam incha allah ñu ñëw féete ko biir Grand Yoff. ñi bàyyi nag nee nañ boobu doomu daanu mën na ci am. koñ la ñu xam man maa koy dóor mu daanu. mën na laa dóor nga daanu. man sa morom mënu ma dóor ma daanu impossible. moom dóoral ma dóor lay def. koo mënee ma ñoon màgget naa. fi ne nii ñoon la. day simb rek lii la fi dese. jeexal na tàkk. ah ma ñoon laa yor de. bàyyi ma ñoon bëri naag. copine la fi mu ne nii jeexal naa fu mu taxaw day wéeru. waaw yow du bii sax daf ma dama dama ci xaw a ruus ësaan ma ko jël nii mag la léegi. Baba Dione dara nekku fi. non dara nekku fi dañuy jaar jàll. moom bu dee def loolu sax dama koy ñaay dama koy dóor mu daanu. lu leer laa la mais ko nga li ko na dara nekku fi. nga ñëw bëreeg moom ko xeeb de. non ni nga waxee et je le sous-estime mais moom yëkkatiwu ma du moom. moo ma taxoon a jóge Espagne. moo ma taxoon a jóge déedéet roi des arènes moo moo ma tax a jóge si Espagne ak sama décision si man maa gaaw ci ponkali yow ñoom balaa ñoo jóg fekk man jóg naa ba wàcce. est-ce que xam nga bi nag moo nekk dama koy passé incha allah ah. man je je rate jamais mes examens man maa borom combat défi si man kese maa fiy toog 5 ans ñëw ma ñëwaat dundalaat làmb keneen du ko def yow du ko def amul beneen mbër bu def parce que loolu yàlla moo ko def si ñun c'est moi le chouchou loolu yàlla moo ko def. sa ari mi arat sa raani mi baakan si jaggi yow sey laaɓe ma dog billahi yow sama mbokk njaago ya sama mbokk haal pulaare onon banndiraaɓe kaal pulaare men mbeltiima no feewi kon jarama allah jarama mene heeɓi combat menen e bama dion ñaguere men allah dokka victoire e makko e ñalande kinse sowo mboko espagnol i ustedes los españoles tenemos otro combate eh, recé por nosotros ayudanos por nosotros este combate por ustedes sama mbokk français yi nag ñoom saram ñoom eh, Djibi sama gars yëpp ah, ñu jàpp ci combat bi te yaa ngay bondé waaye war nga tëjal Thiatou Senzala dafa mel ni Raco Mobile la mbokk yi caxabal na ko da koy daan da koy daan eh Talla Gaindé daan na ko Talla Gaindé numéro 2 daan na Thiatou Senzala eh xoolal ma Talla Gaindé na muy def xoolal ma Talla Gaindé numéro 2 na muy def Talla Gaindé numéro 2 Thiatou Senzala Talla Gaindé Thiatou Senzala daan na ko xale yi paasal la dëkk Thiatou Zenzela Talla Gaindé numéro 2 non dama bougé nii su ma génnee tuuti fekk ay 30 minutes ma dégg yow fekk 30 minutes dinaa la woo incha maa lay delloo siyaar. tey ñu ñëw gis nañ ne sa poulain yàlla dogal mu am suba defe naa ne yéen a ngi koy waajal sa àdduna naka xale yi. xale avant dañuy sant waa Wasaare ak waa 3SPT moom waa Bawol TV waa démb démb dindi woon ak waa Bawol TV waaw suba lamb la ndax lamb dañuy waajal sur les plans da ngay prépa man sama chaque jour li may booy rek defet ngay teg ci kaw teg si machine mu mu jël victoire. ndax soo jëlee victoire teg ko ci kaw rek soo daanoo da ngay am kersa chaque jour soo dem lamb loolu nga war a programmer mais comme que ñoom dañoo nekk ay boy yoo xam dañoo déggal ñu yar leen doon ànd ak ñoom depuis temps booy ba léegi ñu leen wax ñu def ko suñu leen teree ñu bàyyi suñu amee seen combat dañ ciy sonn ñoom ñëpp nag amul xaj ak seen ndam nag suñu borom a ko yor te dañoo andi titulaire suñu borom may ñu ndam dañ ko koy santé di soññi yaat yeneen gars yi nga xam ne ñoo ngi si ginnaaw war a bëre samedi ñoom Valdo am nañ combat gars yi équipe bi ñu am combat yëpp bëri na te dañ leen di ñaan rek fu ñu ko teg foofu la entraînement yi na lool mais bëgguñu am ndam la rek loolu la ñuy commencé liggéey xale sant yàlla julli si bi. ñu ma gëj a gis laa laa gis si làmb ji yow gëj naa laa gis si làmb sa adversaire yi nee toog. maa waroon bëre grand combat bi sax tey jii maa bu am booy remercié. mais neen daa blessé dañuy jàpp ne daa blessé rek. na dafa blessé nga wax. waaw dañuy jàpp ne kon daa blessé rek di xaar leneen boo ñu xoolee xam ne liggéeyoon nañ doon waaj tey xool ñu rek. sant yàlla nag bu booy bu du booy remarque fi mu toll da nga toog xaar ko moom tane. non non non non bu keneen ñëwee bu keneen ñëwee man instant yii bato laa yor gaare ko géejewaay bato bato gars yi gaal lañ yor man bato laa yor géejewaay pareegu ma. les escaliers la. nañ ci Aline Seye 2 Aline Seye 1. Alioune Seye Eumeu Sène junior ñoom ñëpp xaj nañ xëpp ñu ma doole dàqu ñu ma bëre gënuñu ma soxor. géej combat nag dafay faral di yéex. non ñoo ma ñemewul rek. gars ñoo ma ñemewul gars xam nañ na gars yi nañ ne man du ma caaxaan damay liggéey. damay liggéey te du nelaw. xam nañ na man caaxaan xaw ma nañ ñëw ñu bëre dañoo war a ñëw ñu bëre. man maa soxla si digg géew bi xeex xeex xeex bi xeex bu métti bëri bi bu bëri. man maa bee de xeex bu métti. maa ñi ma war a fekk si kaw moo tax may wax lii mais du ñii nii nii may wax. dama sama bët daa mum ko teg. di gis doo doowaar nag dafa rafetlu ay mbër fi tool dafa rafetlu ay mbër non bul wax loolu fu seet jaan ñaane booy fay ne fa Angleterre ne fa Talfa ne fa su ma nee mbër mooy ñuy bëre yow bëre woo booy fay bërewul seet jaan ñaa combat am ñu xam nga bëre mais lu ko yàq si adversaire yi la rek bu gars yi ñemewul tam nañu wax dama dama soxla gars yi nañ ñëw ñu bëre dañoo war ñëw ñu bëre non Alioune Seye Junior Alioune Seye écurie Waalo moom pare jeexalagu ma fa pareegu ma fa écurie Balla Gaye su ma jógee foofu jubalee écurie Balla géej si boppam bato laa fa gaare waaw buñ nangu man rek ma dem écurie si guerre bi guerre xeex laa soxla loo xam ne dañ koy suñu borom may ko ndam xale bu la te suba nag lamb jënd la ñu laa la koy waxee surprise dina ci am nag Ardo yow laay waxal xam nga ma xam naa la sa premier combat maa ko waajal ba fi nga toll nii tey bis ni ko tey dañuy ñaanal suñu borom maa ngi si ndam lu set wécc wécc wécc wécc te man tiituma si combat bi te maa ngi ne stade incha suba dinaa ñëw stade wax ak am lu ma def ak yow nga xam ne combat bi combat parcelle la man gëmu affaire rek 100 pour cent yooyu man parcelle laa gëm te ku ma yëg bool ma sa bopp ma dugal ci yow ba nga yëg tàkk te nga xam ne combat bi doo ci wéet bu soobee yàlla dina la ñaan a xolo ku ñu xam ku ne dinañ ko woo wax ñu jàpp ci combat bi ma yëg nga xam ne suba am na combat bi moo ko ardo doo ngay ba léegi nar am lu ko bett suba mais suñu borom bi yor ndam nag dañ koy wax mu mayal ñu ardoon ndam lu set wicc ci barke yonent bi waaw xoolal di wax xale jigéen yi fête des mamans fête des mères kontaan naa ci ñoom ah fête xale jigéen yi sant sama soxna Ousseyn Maane sant sama yaay Fallou Diaw sa combat bi métti na te yàgg de waaw gis nga de làmb ji nii la mu doon demee te lii la suñu borom tuddee maa ngi sant yàlla bu wér a wér xam ne xale laa sama adversaire tamit maa ngi koy ñaanal boo ma dee combat yàlla jàppale ko may ko ndam bëri nañ xeex nañ waaye yàlla ma jox ndam li ma dara suñu borom moo ko jox. sa kom sa sa sa biy bëri cee osé ci xeex bi ci bëre bi lan la. waaw dara damaa entraîneur wóor lu ma liggéey sama écrit jàppale ma sori si man nag jàppale ma bu baax a baax ma wóor lu ma liggéey wóor moo tax lamb sa bakkan ndax gis da koo ñàkk mais moo tax tey nga faay man damaa bokk ci lamb boo xoolee champion yi bëree bëri naa ñaar ñoom du ma tudd ay tur nag waaye dama bokk ci làmb xam nga bu baax faru jar daa bokk ci làmb kii sax talal talal moo tax ma bëre ak moom waaye man du mag yàlla waaye yàlla dogal loolu waaye sant yàlla ñu ma war a bëre xam nga leen bu baax yàlla baax na ñu ma war a bëre yéen xam nga leen yàlla yàlla dafa jaam lu si kanam roota bët man du ma tudd mbër du ma tudd mbër du ma tudd mbër barki Serigne Saliou ah waaw mënul ñaax lamb la lamb la lamb la quoi waaw kuy bëre moom lamb daal yi la mën a demee daal waaye sant yàlla bu wér yàlla dama leen jaamu daal yéen tamit ñoo leen sant bu baax di leen gërëm seen liggéey rafet na trop journaliste yi kon nag délégation madame la ministre ñu ngi ci bind El Hadj Mor Seck Karim Faye Lamane monsieur Lamane Fall Aïssatou Ibrahima Faye. association des communicateurs traditionnels man de maa bokk suñu président ngi taxaw suñu président El Hadj Mor Seck ngi taxaw na partout ba tax kenn mënu mbokk yi arbitre baa ngi laaj ay jugeem combat bi dox ci diggante capitaine bu caaroy mbooloo ak ki nga xamante ni mooy Thialou Nder mbokk yi le mars il grand combat baa ngi noonu capitaine mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw moom la ñu jàkkaar lool capitaine mbokk yi Ahmed Deme andi ki nga xamante ni mooy Thialou Nder brise de andi. ñooy noonu ci diggi géew bi capitaine moo ngem moo ngem lu bees yi te ci morceau bu bula bi ca la mbokk yi moom lañ jàkkaar lool moo def tere yi bi ci bopp bi capitaine Thialy capitaine Thialou ñoo ngay lewaatoo njootu naa ni xeex dana ci am xaw ma nag kat moo njëkk a dóor waaye ni ma leen gisee ñoom ñaar ñuy doxee ak ni ñuy xoolante <laughs> cay làmb diggante Parcelles ak Thiaroye la Thialou Nder capitaine xaw ma capitaine lan capitaine équipe ab ñaari capit ñaari coach yëpp dañoo taxaw toog xoolal kee toogagul ba tey hee coach yëpp sax dañoo mystique toog na toog na ku ci nekk sa coach nangu njëkk toog ay coach yi sax dañoo mystique dañoo arrêté combat bi parce que coach yi ku ci nekk yaa nga jóg taxaw kenn nangu cee toog yéen ñaar looloo waraloon mbokk ñu arrêté làmb ja ci diggante capitaine ak ki nga xamante ne mooy Jalandeer Jalandeer mbokk yi moom la ñu jàkkaar lool capitaine moo ne woon ginnaaw capitaine Jalandeer Jalandeer daa mel ne cokkaas na capitaine Thialou Nder Thialou na waaye dalul capitaine ngi lew toor di ko déglu capitaine Thialou Nder door na léegi Thialou Nder capitaine capitaine ngi ne tek capitaine Thialou Calendeer dooraat na léegi capitaine Calendeer xeex waaw waaw capitaine sànni léegi ñaari ku Thialy Nder ngay lu muy defar capitaine Thialy Nder capitaine door na léegi capitaine Thialy muy xeexee dafay hésité ci biir xeex bi moom capitaine waaye Thialy Nder xool capitaine Thialy Nder eh day mel buy buy door day xool. capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine capitaine da ngay dóor Thialy Nder jàpp na capitaine da ngay dóor capitaine da capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine a ngay dóor Thialy Nder nga jàpp

Papillon ak Calendeer seen combat bi capitaine Calendeer Kalindera ngay dóor Kalindera capitaine eh. capitaine Kalindera fàq na ko da koy mbot eh. capitaine lu mu def nii capitaine Challenger capitaine Challenger seen combat bi yàgg capitaine Challenger capitaine Thialy Nder ci suuf waaye Thialy Nder nga jàpp rek awa mu bëgg a liggéey nga koy buus moo ngi koy añ da koo bëgg a na ko

capitaine Thialy Nder Thialy Nder lu wala Thialy Nder lu capitaine Thialy Nder mu ngi koy ëñ mu ngi koy capitaine ëñ na calon lee taxabal na ko léegi waaye lu muy def nii Calandeer capitaine Calla Ndeer capitaine Calla Ndeer capitaine Calla Ndeer capitaine mbokk yi ci nekk yaa ngi jàpp ndengeñ di déglu sa morom capitaine Talla capitaine fa mu duggee baax na capitaine génnaat na ñu woon ko jàpp ñaari loxo ci ngeen bëggoon koo saxabal waaye ñoom ñaar kenn bëggu cee def capitaine Talla doon na ko tànk Jallo Ndeer doon na tànk capitaine capitaine Jallo ñoom ñaar boo xoolee ne combat bi yàggee ngeen bàyyeeku ci nga xam ne ñoom ñaar ku ci nekk liggéey nga capitaine ak Jallo Ndeer ak Jallo Ndeer koy bëgg a zongale zongale na ko mu bañ mu roof taxabal bi capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder Thialy Nder raf na ko ca xabal léegi capitaine dafa bañ ne maa lànk tànk ba du takk na ko takk na ko ca xabal bañ na capitaine laay laay la <laughs> eh capitaine capitaine daa bañ Jalanda takk ko war ko ba biij ko bës bañ boo ma takkoon doo ma def dara <laughs> capitaine Calandeer capitaine Thial Nder capitaine Thial Nder eh. Thial Nder rom na ko temps ba jeex na. mbokk yi Thialender ak capitaine bëre nañu léegi ba mi-temps si abi bi na Diagne moo ñu woon ci li xamante ne nii capitaine Thial Nder arbitre bi sifflé waat ñooy noonu ci diggi géew bi capitaine Thial ñooy noonu ci biir mu ngi noonu ba mi-temps dellu si waat capitaine wàcc na eh door na ko léegi ku mu dal Thialinor capitaine capitaine Thialinor eh eh, eh maam na Thialinor maam na capitaine da ko doo ñaay kuy dal Thialinor maam caxabal na ko capitaine Thialinor capitaine Thialinor capitaine Diallo Nder seen combat bi na capitaine waxe caaroy géej Diallo Nder jóge capitaine Diallo caxabal na ko waaye caxabal ba dugul capitaine da koy puus da koy génnee Thialendey bañ na moo ngay puus ñoo ngay bëree capitaine Thialendey capitaine Thialendey ñoom ñaar dafa mel dañoo xaw metti na trop ñoom ñaar dafa mel ñoom ñaar dafa mel xaw a doole nag dañoo tolloo doole dañoo tolloo doole capitaine daan naan ñoom ñaar a ngi noonu ci diggi géew bi métti na trop waaye. Seydina loolay làmb. jàmm ngi noonu. capitaine Thialu ñoo ngi jàppante ñoom ñaar. ku ci nekk am nga loxo ci gemb. capitaine Thialu Nder. capitaine boo si génn noonu ba dun la caxabal. capitaine Thialu Nder. capitaine Thialender jàpp na capitaine a ngi bëgg a jàpp wala boog Thialender a ngi bëgg a jàpp jàppul mooy xool ki di capitaine moo gën a nekk ci làmb ji doomu daanu ba du ci am fàq na ko ndax eh jël na ko oh. capitaine Thialender lu mu koy def eh Thialender Caly Nder capitaine Caly Nder capitaine na Caly Nder ngay ji neex na journée Ouzin Production bëre nañu ba mi temps dellusiwaat waaye sat bi sedd na

kii di Thialy Nder maa ngi fay gis Brise de Mer capitaine Thialy Nder Thialy Nder taxaw na capitaine Thialy Nder capitaine Thial Nder combat bi dafa yàgg Thial Nder door na léegi teen ca Nder abit bi àttewaat na abi bi jox na avertissement ki nga xamante ne mooy capitaine nee na ko bëre woo eh capitaine day natt ba mu baax mënu ko kër. dox na ci kawam gis nga li ma la waxoon da koy daan da koy daan Thialy Nder daan na capitaine Thialy Nder daan na capitaine. yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla fay bul jooy Thiaka bu laa walaay laa walaay lépp kii la lépp kii la barke Alxuraanu Kariim maa ngi ginnaaw général barke Rasulullaay combat bi dafa yàgg non foo mu yàgg parce que daf maa xeeboon dafa yaakaar ne am ma doole te yàlla may na ma doole barke Alxuraan père fan nga jëm kontaan naa Tidiane Faye dañoo ñu bëri Tidiane Faye. Tidiane Faye dama may chance. bu lam sax. dama may chance man ñëwee sama borom. xam nga ku daan fii sa bala. daan dige kooku ñoo cuune.